auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaan irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ndokkeel noo ngi fii ci euh, université Ahmadou Bamba mu jàmma Cheikh Ahmadul Xadim euh, fii ci Touba nga xam ne euh, liggéey bi ñi ngi waaj ngir fas ko yéene ubbi incha allah euh, bu ginnaaw suba ak jàmm muy le 6 février ci ndigalul sëriñ bi euh, comme ni ngeen gisee euh, image yi jàll yëpp ci bokk yi nga xam ne ñu ngi leen di jël ci ay interview ñuy wax seen xalaat ak seen jàngat ak it wax wax yu am njariñ ci liggéey bi ak diggante sëriñ bi ak xam-xam tax na it ñi ngi toog ak sëriñ Galaye Seck di borom xam-xam mag jógee ndar moom it ñëw fii ci waajtaayu ubbiteg université bi en tant que borom xam-xam nag te yëngu ci wàll gi incha euh, fas ko yéenee laaj nan la gisee liggéey bi ak it euh, avenir u njàng mi ak njëriñ li nga xam ne euh, daara ji am na ko moom sëriñ bi ñu lay nuyu. ñu ngi sant bu baax a baax am mbégte itam di tontu laaj bi ngeen ñu laaj. Euh, ni nga ko waxee ñun dañ ñëwoon ci ouverture université bi ngeen laaj ñu suñu xalaat euh, ñu am mbégte tontu ci itam euh, université bi dafa nekk loo xam ni yàgg nañ ko suivre am yaakaar itam am ci yaakaar bu bu bu rëy ndax yéen ñi borom xam-xam yi ni ñu dégg ngeen ñu koy waxee am na nañu yaakaar ne université bi bu ubbee lor ak euh, ignorance muy jaxlu ak kabadu dana fi jóge waaw muy du am solo itam université bi liggéey bi ak ni ñu ko concevoir déjà moo ñu jëkk yéem ndax nekk na loo xam ne daal ci délai bu gàtt gàtt gis nañ ni bi sëñ bi joxee ndigal rek concevoir nañ fi université bi defar ko ci defar bu yéeme ci niñ ko xalaate ak niñ ko taxawale ba tey ñu ngi nii naan bu ci yàlla àndee gannaaw suba dinañu ubbi démarrage université bi euh, programme bi itam bi ñu wax ni moom lañ fi nar def nekk euh, programme bu complet boo xam ni daal àdduna yëpp euh, waxuma la ni rafetlu nañ ko sax waaye dañ ci yéemu daal ndax euh, xam-xam yëpp wax na ni danañ ko fi jàngale jóge ci daara alxuraan ji ba ci njàng mag mi jëkk ji majalis ba ci njàng yi nga xam ni euh, mooy xam-xam yu kawe yi ak surtout euh, ci ni ma gisee man daal gis naa ni dafa nekk université boo xam ni particularité par rapport à yeneen université yi fi nekkoon daal mooy xam naa yar bi ñu nar def ci nit ñi ak itam surtout formation pratique bi nga xam ni ku jóge ci université bi di nga ko am loolu daal xam naa ni ci gàttal daal nekk na loo xam ne daal man yéem na ma daal ci université bi di doon sant yàlla rek jërëjëf euh, xam naa kon euh, ñàkkul euh, comme ni nga ko gisee ci biir liggéey bi en tant que borom xam-xam ak say xalaat ak say jàppale incha allah xëy dana ci dana ci ñëw soobee yàlla. université bi man ci domaine finance laa daan liggéey man yàlla def na nag retraité naa waaye nag université bi moom comme ñëpp maa ko bàyyi xel maanaam daal. Euh, maa ngi ci jëm jàpp euh, euh, ni ma ko mënee wàll bi ma nekk loolu daal laa ci mën a xalaat. côté ci côté aspect finance sa relation ci borom waaw yooyu moom ñi bëgg ñi université bi intéressé moo xam dañu fi bëgg jàng moo xam dañu fi bëgg jàngale bare na. man mi euh, comme ñi ci bari xam na ni ki jiite université bi ak euh, ñenn ñu nekk ci université bi yàlla def na xamante na ak ñoom dañ may faral di laaj euh, ma leen di waxal itam li ma xam ci université bi programme bi ni ma ko yaakaare ni ma ko ni ma ko ni ma ko dégg ni ma ko gisee daal ndax projet bi liir naa ko am na ay boroom xam-xam yu bare yoo xam ni daal euh, intéressé na leen euh, ñi nga xam ni mën naa leen booleeg ñi jiite université bi danaa ko def waaw waaw xanaa sant rek ak euh, am mbégte ndax lii wala fii di wax fekkee ma ci boole man dama ñëwoon di ziar si ak di kile ngeen laaj ma ci sama xalaat may am mbégte rek tey ñaanal waa université bi ak euh, sëriñ bi nga xam ni moom ñëpp xam nañu itteem ci université bi sans borom gën a dëgëral seen taxawaay daal ba li ñuy yaakaar ci université bi ñu am ko incha allah ndax université bi ñëpp xam nañu attente bu importante bi ñuy am ci moom te incha allah danañ ko am ndax ndax comme ni ma leen ko waxee daal dafa nekk université boo xam ni dafa wuuteeg yi fi nekkoon waaw